bopp ah, ngi leen di fay yéen tamit di leen ziar leen tatakal di liggéey bi ngeen di liggéey ñun ak ñeen la yal na yàlla defal jàmm daba nag kenn xamul koo koy jaar ku ci nekk rek danga nga koy jaare sa morom ndax daba nekkatul woon daba Cees daba àdduna la woon nekkatul woon daba jànqeen àdduna bi yëpp ñoo ko moom ndax démb ku ci nekk bi nga déggee tis bi sa xol jeex na ku ci nekk bi nga déggee tis bi nit wane na fu ne artiste wootee na fu ne ci àdduna di ñu ma saw kon daba du woon suñu daba ñu doom yàlla dafa def nag mu dooree ci ñun ñuy ànd mais dem na ba moomatuñ ko ñun doom waaw dem na ba moomatuñ ko ñun doom. alors ana yan kàddu ngeen wala sax yëgal nga li nga xamante ne moom moo di feebar waaw yëgoon naa feebar bi nag yëgoon nañu feebar bi daan fi ñëw di ko seet si wax dëgg yàlla saa su rek man tout le temps rek dafa ma daan woo ci semaine bi rek déggante nañu déggante nañu waaye feebar bi gënoon na metti nii mu demee nii ba ñuy yaakaar ak dem ba ñuy tiit naan daba mii dina jug du jug ba ñuy tiit te yéene ko ko woon di woon moment bi ndax booba mi ngi kër doomam feebaroon ba xaw a sonn mais tane woon na ba ñu bis waat këram di dox ay soxlaam waaye nag yàlla bu bëggee ñëppay ñàkk ku dul may sa bopp la yàlla may nga jël te yàlla buy defar day mel ni kuy yàq moo ñu ko joxoon moo ko soxlawaat di ko jël ay ñaan lañ ko deseel ay ñaan lañ ko deseel fukki xulwaat benn yi saa su di lañ ko koy jox ci waxtu wuñ julli di ko ñaan yàlla xare ko àjjana mais nit ku baax la woon sànq tamit ñu ngi gis nii doomam bu góor mi ngi def témoignage di wax ni nga sonne ci feebaram ba tudd li nga xam ne mooy sa tur euh, a wax rek ci feebar. ndeysaan xam nga man jànkin dañ maa yar man jànkin bi ma fay dem ñun njëkk def téléfilm 16 ans laa am ñoo ma yar xale bu am 16 ans gimmee ci say loxo daanaka sa moroomu doom man ñoom ndey siini yaa faatu daba ñoo ma yar papa Cheikh sama yaay daf ma ko dénkoon ñoom seen ngañ Moussa ñoom ñoo ma yar xale nag boo ko yaree di def ci moom ay valeur di ko wax nii dangaa war a am fulla dangaa war a am fayda dangaa war a diiñ nit bii nga doon moom su màggee ba am junni na la koy jox nga di ko ñaanal loolu rek laa warloog ñoom parce que dañ maa yar dañ maa yar da da kuy kuy ñëw ku ko def ku ko am ñëw ci sa loxo ba tey ma am at yi ma am kon kooku ñoom ñoo ma yar ñoom ñoo ma yar wax dëgg yàlla euh, que ni lu ma defal daba rek damaa war parce que doomam laa waaw woon sax ku ko wax bugguma woon sax ku ko wax ndax cër bi ci awa am aadama am ko ci Malick am ko ci man moom laa ci am waaw moom laa ci am. Euh, ñu gis ki nga xamante ni moom moo di Sané nee ñu jàpp li nga moom moo di sax ñi nga xamante ni di ko wax euh, loolu nan la la. waaw Sané du tay rek la jàpp xam nga ma nekk ma nekk ci tur bu ci ñoom nga nekk seq seq laa ne mais def lu baax boo ko defee dañ lay jaajëfal li mu war a def nag naam la def mooy que ñi ngi nekk ci aar ñi ngi dëkkandoo Thiès daba di mbokkam. mu feebar mu ñëw taxaw nii la ko defee woon ci Caba Thiès nii la ko defee ci lu bari loo xam ne man la koy jëflante keroog bi ñu ñëwee seesi daba ñu ñëpp Cheikh Ndey Siini yaa Faatu Njaam ba Gilles ñëpp ñëw seesi daba dañoo gis mu ñu wér naa ndax yéen ñëw nga kon ça veut dire que ñun ñooy famille mais ko seetee ba pare ci guddi gi daf maa woo ma man damaa bëgg diw faj ma te saa neex ma ma fa mën a ñëw sëñ Fallou Ndiaye mu fajoon ko nag mu am tan lool nag sëñ Fallou Ndiaye fajoon na ko mu am tan lool ba dox ba ñibbisiwaat këram saa bi ma ko ko waxee mi ngi tombeek weeru koor dafa naan kafe taal otoom li ma tegtal ma fu daba dëkk ma jox ko numéro doomu daba mu ñëw ci saa si jëli ko yóbbu xam nga loolu ku la ko defal chaque jour muy jëli yóbbu damay woo daba na naan garabam yi daba na naan garabam yi bu ñu ko defalee dañ koy wax saa neex yàlla na ko yàlla defal jàmm ci yi ñu koy woo du ñu wuyu sax xam naa gënalu ko te gënaluñ bu ñu sanoon ci jàmm la ñuy wootante mais nii la ko yàlla bëggee da nga gëm yàlla def mais taxaw na saa taxaw na sàmm na yiir na yàlla na ko yàlla defal jàmm alors digganteem ak Binta doomam yi sax dañu wax ba nee nañ sax seen yaay euh, Binta la leen dénk digganteem ak Binta boo ci doon ñëwaat. waaw Binta mook Daba jàng ay théâtre dañoo ànd ca ba ñuy xale ñoom ñaar dañoo ñu nekkee ay xale ndaw ñu màggaale ko Daba da daal ñëw cee sax wóonde si ni maa ngi kër Binta bi mu tuxoo Thiès ba léegi heure bu dikkee kër Binta Samb lay nekk Binta ku ne xam na ne genn waal Daba Soumaré la ñun du théâtre moo ñu boole ñun dañoo bokk avant théâtre dañoo séq lu baax avant théâtre dañoo defante lu baax avant théâtre kon donc du théâtre moom moo ñu boole Binta Euh, Binta mook Daba kenn lañu koo dem ba bëgg boo fi wutoo mu dénk la say doom kooku kenn la ci yow Binta mook Daba théâtre boole wu leen dañoo ànd ca dañuy xale a def lu rafet baax a rafet mën a rafetal àdduna moom yàlla na ko yàlla te xam naa ne njabootu Daba gi ko Daba dénk moom dina na leen bi seen yaay di tële chaque jour mu daw ñëw ci moom xale yi moom la xam yàlla na ko yàlla bàyyi mu daba sut ko aw fan mu sut daba aw fan astafurlaa mu sut daba fan lool Binta mu sut daba fan ba doomam yi mu yiir leen ni mu ko wóoloo ci ginnaawam ba dénk ko ginnaawam ndax Malick kii ko wax léegi ma euh, euh, Adama moo ne sama yaay nee bu fi jógee bintaa nga fi kon yàlla bu yaakaar tas yàlla na binte gudd fan bu uuf xale yi ba ñu ba ñu nekk maam ñoom tamit yàlla mën na ko yàlla dara tëwu ko. alors lan ngay wax sa mbokku artistes yi parce que tamit jàppale bi nga xamante ni gis nañ ko ci Sanekh dafa mel ni que manqué na bu lu bëree bëri situation yu mel ngeen mën a tax yéen ñëpp. ñu ne ne ku nekk di nga am benn bis moom ko mën a leer ci àddunaam muy mu leer ko ni kii moom dafay dee mais leneen mënu koo leer lépp ci loxo yàlla la aaja mais nit ki xam na ni dafay dee tôt ou tard dafay dee tey li fii la nuyoo mën naa nuyoo fu ne saasu ne ñu jàppalante suñu biir ku tane sa morom dimbali ko wàññiwu dara te jaluñu di ko wax ndax suñu daanu ñunu neen la buñ ko defee suñu bopp lañ ko defal ñu taxawu nit ki boo amuloo ko jox sax taxawu ko di ko seet di ko nemmeeku bu delloo seen situation yi di ko wax mooy kan ñu ngi dem lante ak dikkalante déggoo li ma la wax bi ñu fi yendoo ñun troupe bi yëpp lalima moom dabaa bu dul loolu saaneex mbokkam la mais saaneex du ci mbokk dong la ko def du ci mbokk la mais jànkeen ñun ñi fa nekkoon nii ba léegi mosuñoo xuloo amul kenn ku ci mos a xuloo sa morom amul daba bu mosaan am la ko naqare kër ndey siin la jëm kër ndey siin la jëm doom yi bu ñu amee la naqare kër ndey siin la jëm mosul xuloo mosul am siin bi xamuñu ko sax xamuñu ko waaw alors lan ngay wax njabootam bi nga xamante ne bàyyi na ko fi et que ñàkk bu yaay metti na trop dem na dem goo xamante ne si peut-être ku mujjee yaay mujjee ay jooy ñu ñu dese yaay ñoo mujjee ay jooy ñoom génn nañ ci ba pare nii la ko yàlla bëggee nañ am gëm-gëm seen yaay yar bu baax la leen yar éducation bu baax la xale yi yor te xam naa ne seen ginnaaw yaay duñ ci tilimal dara awa maalik Malick duñu tilimal dara seen ginnaaw yaay ndax seen yaay yar na leen taxaw nañu taxaw nañu seen yaay yiir seen yaay sàmm seen yaay xajuluñ kenn seen yaay ba seen yaay dëddu awa taxaw moom it ndax moo ci jigéen moom nga mën a tudd Malick ak Malick ak dégg nga li ko wax fii sànq ak jëkkëru awa ñu leen di ñaan jëkkëru awa nit ku baax la ñu leen ñaanal yal na def jàmm merci beaucoup comme rek euh, li ñu wax ni bu yàlla mbiram dangay naan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maa ngi nii man Cheikh Seck maa ngi ànd ak ab Moussa Seck Serigne Ngagne ngi nii ñoomin Ndeye Sine Sall ak ñoomin ñoom ñëpp ñu nga fële macha allah waaw bisu bi rek bisu njàll la euh, ndax roqe dafa bokk ñi sas jànqeen bi may créé jànqeen production c'est la première à part Moussa Seck mii <laughs> nga xam ne sama doom la maag baayam ñu bokk ndey ak baay à part Moussa c'est la deuxième personne à kii ci laa waxtaan ci lu jëm ci Jankeen production kon ça veut dire Rokhaya Rokhaya Daba Soumaré moom moo fonde Jankeen tey nag bisu naqar la ndax dañoo amoon élément boo xamante ni waxuma sax en tant qu'artiste mais ndey la woon ci biir Jankeen ndax xale yi moo leen magoon ndey la woon taxaw nag taxawaayu ndey lu mu gis lu nar a yàq mu wax ca lu mu war a dox mu dox ko lu mu war a def mu def ko noonu lañ dundee pendant presque trente ans maanaam nekkuñu ay comédiens yu ànd mais ay ñu bokk ndey ak baay ànd mais moom Daba Soumaré nag ndey la woon ci biir bi ñëpp nag jox ko ciru ndey moom boobu loolu nekkoon chance man sax yabul nañ mais mais roqee kenn mosu ko yeb tey nag bis bii day nekk bis boo xam ne dañ koy ñaan yàlla rek loolu lañ dese ndax euh, yàlla mooy ñëw ak mbiram dañ koy ñaan yàlla yàlla bàmmeel mi noflaayam yàlla na ko yàlla jéggal li mu fi bay yàlla na ko yàlla barkeel alhamdulilah. ci biir feebar bi ana yan kàddu ngeen ngeen euh, ñëw nañ seet si ko waaw am na li ma ci gën a marqué bi ñu koy seet si booba roqee feebar na mais li ma jaaxal bi ñu ñëwee def délégation war a yendu si ci moom jour boobu roqee ci ma moo tax bu la neen nit nitee garabam hmm. keroog laa ko gëm roqee dafa wér waa këram ni roqee géej naa añ tey añ na roqee géej naa ree mais tey ree na ba ba ñu ne ci mbedd mi sax dañuy dégg baatam muy ree keroog li ma ci la doxe woon na jamono jooju bi mu fi ñëwee dox nag am son son évolution di gën a positif ba yàlla ñëw tey mais ñun sentir nañu ne moment boobu ba ni mu demee nii dafa wéroon mm. tey loolu moo nit ñi tey garab mm-hmm. sant sëñ Gueye. maa leen di jaar yéen ñëpp. di leen jaale li ñu bokk. Daba sunu sœur la. voyage bi mu mujjee def Paris man maa ko invité Paris. muy le Ramadan à Paris. ñu ko daan def ay ñoom Diouf Fall. Baye demoon ci. Euh, ak ku ñaan ba Diouf Farimbe bi joué dina ma neex. waaw man mii maa ko invité woon Paris. mu ñëw fa def voyage def plus de une semaine. def la Ramadan à Paris sama sœur la. Euh, booy seet sa théâtre yi ñu def. man maa daal nekk jëkkëram lu bari te man na maa jur waaw mu nekk nit ku baax. Mhm. yàlla na yàlla yërëm ko yàlla yokk leeram mhm. jërëjëf. Euh, tey bi mu génnee àdduna euh, ana yan kàddu yu mujj yoo xam ne partagé ngeen ko yoo xam ne bàyyil waaw daba moom moom ma mujjee woo téléphone war na mat 15 jours toog naa ba mu yàgg mu woo ma euh, xaw ma sax kan moo may woo fekkente numéro boobu dama changé téléphone. Mhm. ma ne ko kan la mu ne man a Daba Soumaré eh woo ma damaa bëgg nga ñu àndaat dem Paris. lii daal la ma mujjee wax dans 15 jours ma ko daba dama am fu ma nekk naa la rappelé rappelé wu ma ko ba bërki démb ba jour jour bi mu gaañoo la sama xel di nekk ci Daba Soumaré ñu tàggee ma ko ci jur boobu mel ni dafa nekk loo xam ne daal collection lu yàlla dogal la mhm. asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf